ak gannaaw ba ñu ko doon tudd ci ceewal pétrole fi ci diwaanu Sénégal moom Alioune Sall miile nekk rakk ci président Macky Sall daan nay mbir ma gannaaw ab slogan boo xamante ne askan bu Sénégal génn nañ ko nag duppee ko jox ma samay quatre cent mille mu nekk nag ab retrouvaille gannaaw rek enquête boo xamante ne chaîne bi nga xamante ne moom mooy BBC defoon na ko enquête bi yaatu bu jëmoon ci coowal Petro-Tim coow boobee sax askan bu Sénégal li woon nag Alioune Sall daf leen amel ku ci nekk xamante ne nag daf leen ko war a jox ku ci nekk nag doon ko laaj li nga xamante ne moom mooy sa 400000 ci coowal Petrotim loolee BBC nag defoon ay révélation yu explosive yoo xamante ne nag mu ngi jëm ci exploitation gaz biile ak li nga xamante ne moom mooy pétrole bi coow loole nag juróon na coow fii ci diwaanu Sénégal ndaxte nag enquête BBC boobee la mu fasaloo mooy nag 10 milliards de dollars la woon yoo xamante ne nag Alioune Sall daf ko doon jëlee ci pétrole boobee loolee nag nekkoon suñuy koppar gannaaw loolee nag askan bu Sénégal ñu ne nag population mu ngi tolloon ci quinze millions d'habitants dañ koy laaj nag ku ci nekk euh, sa quatre cent mille da nag xaalis boobee bu ñu ko pàccoowee ku ci nekk quatre cent mille nga ci war a am tax na sax ñu ko doon laaj jox ñu ñuy quatre cent mille tey jile nag ba ñu ko invité ca plateau bu rajo Futur Média moom Alioune Sall dellu soir na ca mbir ma nee na nag ay ree la ko def gannaaw rek buy fàttaliku coow loolee ñu ko doon tudd gannaaw rek ba ñu tàmbalee di gis pétrole bi fii ci jàppale ñu nag xam ne loolee ay tuuma kott la woon moom mu fi nekkoon nag maire bu Guédiawaye dellu siwaat na ci mbir ma ci ton bi ironique nag muy laajte askan bu Sénégal li nga xamante ne moom mooy 400 mille am ndaxte nag jàpp na ne jamono jilee askan bu Sénégal ñoo ko war a delloo ay 400 mille am moom Alioune Sall taxaw na temb nag ñu fay ko ay 400 mille am moom Alioune Sall loolee nag nee na bu ci xelam demee dafay nag nekk humour ci moom ndaxte nag jamono boobu enquête ba sax xamul woon na mu demee woon jëloon na sax li nga xamante ne moom mooy kaamil alxuraan dem di ci wat nee nag yorelul askan bu Sénégal benn xaalis coow boobee ñu ko doon tuumal ci mbirum pétrole du benn baril pétrole boo xamante ne teg na ko ay gët loole nag defoon na ko ci place publique yi maanaam nag ca télévision la demoon ngir wet di boobee tuuma nga xamante ne ñu ngi ko doon teg ci ndoddam moom mi nga xamante ne nekkoon na fi maire bu Géejawaay gannaaw rek li nga xamante ne moom mooy coow boobee gis nañ ne nag baril pétrole bu njëkk bi génne nañ ko ca code bu baax a baax tuuma yi nga xamante ah, tegoon nañ ko ci ndodda moom Alioune Sall nag nee na buy fàttaliku mbir ya xamul woon sax déclaration yi fa mu jóge woon nekk na ko xamante ni actualité bi rëccoon na ko bu baax a baax waaye nag tuuma yooyu mu ngay sant yàlla bu baax a baax ndaxte nag borom bi leeral na lépp koppar yooyu nga xamante ne dañ ko ci doon tuumaal pétrole boobee ah, jamono joojee génnul woon fi nga xamante ne moom mooy ci duwaanu Sénégal tàmbali wuñ woon nag di ko extraire fii nga xamante ne moom mooy ci réew mi li kàddu nag Alioune Sall ci bésu tey bii la ko yëkkati ca rajo Futur Média.